damay xool Afrique sama xool tooy léeg-léeg ma xool Afrique jooy léeg-léeg ma xool Afrique am ak jaaxle lool léeg-léeg ma xool Afrique sax jéppi sama bopp léeg-léeg ma xool Afrique sama xel dalaat Afrique yeewu jot na lii xew ci àdduna bi doy na sëkk leçon Afrique bu ñu toogee ba jamono jii amuñu benn considération ci àdduna bi war nañoo xoolaat sunu bopp ca dëgg-dëgg. damay xool Afrique sama xool jeex xam ni coono bu nekk teg nañ leen ko ci àdduna jaay nañ ñu toroxal nañ jël nañ suñu moomeel dominé nañ yàq nañ suñu culture. jaxase nañ ñu dugal nañ ci suñ biir coow loo xamante ni xawma fan lañ jëm ak moom ba fi mu nekk africains yi ñu ngi xeex seen biir ci waxtu woo xamante ni européens yi ñi ngi dajaloo seen biir ngir domine àdduna Afrique yeewu jot na da ngay xool Afrique dootoo gëm benn njiitu réew ndax saa yu nekk ñi ngi doyadal seen bopp ci kanamu tubaab yi complexe faiblesse la ci doomu aadama lan moo tax nit ku ñuul jàpp tubaab moo ko gën lan moo tax nit ku ñuul di séentu ci ci tubaab xam-xam lan moo tax nit ku ñuul di séentu alal ci tubaab lan moo tax nit ku ñuul bu bëggee développer day woo tubaab lan moo tax nit ku ñuul bu bëggee tabax sax entreprise day woo tubaab xanaa ñun jànguñu xanaa ñun xamuñu xanaa ñun duñu ay nit mais ñun lan mooy suñ problème ñun Afrique àdduna bi nit ñi ci jongante la ñuy nekk ñun ba tey àdduna bi nit ñi ci samp ay entreprise di développer àdduna bi ngir mën a dominer ci lépp ñun ñuy tëdd nelaw ba tey te li ma jaaxal dëkk boo fi dégg fii ci àdduna rek la muy tiitaroo di ko ndamoo Nous ñun la Afrique mais nous, lan mooy suñu njëriñ ci àdduna Afrique seetaan bi bari na Afrique yeewu jot na ba tey jii ñu nekk 2022..! dégg pays africain mu bekk puissance mondiale du armée du université du ci du du ci pétrole du ci gaz amul lenn lu ñuy dégg te man li ma jaaxal mooy loolu lépp fii lay jugee ci ñun africains yi Europe lan la am jëmmi Europe France lan moo fa nekk lu tax mu mën a dominer africains yi au contraire ñun ñoo leen waroon dominer ñoom ñu soxla ñu ñëw wëlbatiku ci ñun dañu raamal waaye ñun ñoom moom suñu alal ñoom moom suñu gerte jaay leen ko wëlbatiku di jënd seen diwlin. ci pirine bu mu leen neex di leen raamal ñun ñoo moom suñu pétrole jaay leen ko ñun ñoo moom suñu zircon ñu ciy defar ay satellite ñu ciy defar lu nekk wëlbatiku di ñu ko jaayaat ñun ñoo moom suñu phosphate ñun ñoo moom suñu kawsu fii lépp lu Europe di jëfandikoo ba tax mu mën ñëw demine man li ma jaaxal mooy ci ñun lay jógee ñun africains yi mais ñun xanaa ñun amuñu xam-xam mais ñun xanaa ñun amuñu xel mais ñun xanaa ay dof lañ mais ñun xanaa duñu ay nit mais lan mooy suñu problème lan mooy suñu problème wala bokk dañoo amul suuf suñu def entreprise wala bokk dañoo amul ay borom xam-xam yu mën a tabax entreprise mais lan mooy suñ problème ñun africains yi seetaan bi bari na booy xool sa da nga naan yàlla di leen indi ci àdduna bi ngir ñu toog di seetaan film film bu jeex rek ñu pelee beneen ñun loolu rek mooy suñ métier ci àdduna fi mu xoolal li xew Ukraine fukki nit fukki nit ak juróom dee adduna bi yëpp kenn ku nekk ubbi sa làmmañ bi di wax mais Ukraine lan moo ko wóotale ak Libye kon tubaab bi amuñu benn considération ci ñun ñun nañuy dee chaque jour amul benn problème mais ñoom benn seen benn doom bu deewee Afrique kese nga dégg médias suñu médias yi gën a bon ñëpp gën a complexe ñëpp tubaab sàngam dee na mais ñun suñu junni doom bu Mali fay kenn du ko du ko parce que ñun suñu amuñu benn considération ci parce que nekkuñu benn puissance ci nous ñun ñoo affaiblir suñu bopp ñun ñoo lottal suñu ñun xamuñu sax ñun mais nañu mais xoolal Serigne benn nit bu jàkkaarloog junni ans mu xeex ak dara défendre benn idéologie nekk nit ku ñuul mais tey jii xoolal indi Sénégal ba exemple nekk développement mais ana ana Mansa Moussa empire Mali tey jii boo dégg ñoo àdduna bi fi ki ëpp xaalis ba àdduna soso ba tey africain la mais doo ko dégg mukk ci àdduna ñu di ko wax or bi gën ci àdduna bi ci ñun lay jóge parce que ñun dañoo complexe ñun dañoo faible parce que ñun tubaab yi amuñu benn considération ci ñun ba léegi ay serviteurs rek la ñu jàppee Afrique yeewul Afrique xamal ni kenn bëggu la Afrique xamal ni kenn fonk la dañ lay jàppee benn limon paccar la ba nga ba nga nal la ba nga wow konguñu sànni la loolu dong la tubaab bi doy. lan la ñu tubaab ëppalee laa xamut mais dama ci université yi nga teg nit ku ñul teg tubaab ba xam tubaab moo ñu ëpp intelligence doo ko gis fi ñaata boroomi xam-xam nekk nit ku ñul ñoo nekk NASA mais doo dégg jamais de la vie ñu tudd leen parce que bëgguñu nit ku ñul am considération ñaata nit ñul ñoo fi def ay découverte scientifique ku mel ni Cheikh Anta Diop ñu effacer histoire bi doo dégg kenn di ko tudd ci àdduna fii. mais ñun bu ñu tubaab yi jëfandikoo suñuy invention ak suñuy découverte mais ñun ñu jëfandikoo ak suñu bopp mais ñun dañoo complexe bu tubaab indi woon fi bac sax nit ku ñuul indi fi thèse sax tubaab la ñuy àndal parce que ñun dañoo complexe vraiment complexe bi bari na. Afrique yeewu leen tubaab yi dañ ñuy nax bëgguñu ñu buñ ñu bëggoon def ñu ay nawle tubaab yi bëgguñu ñu bu ñu bëggoon def ñu ay nawle. àdduna toll dëkk bu ne da ngay imposer sa sa bopp contrat dong moo yor àdduna bi Sénégal mënoo nekk dëkk bu am fer li fi génn ci fer ëpp fuuf li ñuy importer li ñuy jënd Sénégal mënoo nekk dëkk boo xamante li ñu génn ci or ëpp fuuf li ñuy jënd or ba noppi or de fi seer parce que ñun ñoo am problème ndax lan.

lan suñ problème Afrique révolution jot Afrique buumu gi doy na lii dellu woon ci colonisation sax moo tane lii ñu am parce que booba sax nga jox déroulé normal moo tane nga jox ko africain yi déroulé ci buum goo xam tubaab bi nos seen bakkan bi ñu dañu womat dañu diri ci naaju tàng Afrique yeewu jot Afrique révolution jot mais ñun am nañ ay xam-xam am ay références am ay ressources lan mooy suñ problème question bi africain bu nekk dako ko war a poser boppam lii doxal àdduna am nañ ko mais lan moo tee ñu dox ñun présence tubaab bi dong mooy suñ problème il faut ñu évacuer tubaab bi dëggal suñu bopp mën a dox